jërë ngeen jëf mbokki internet yi ba tey yéen ñi ñuy topp saa su ne wéy leen di abonné partage like vidéo bu baax a baax man la gis nag mbirum Ousmane Sonko kookee di siisu Ousmane Racine Thion boobee la àtte nag wala boobee la ordonnance ba nga xamante ne si rek génn na ko ay jàngat yu bëri bëri daal na mel ne daal na say tukki ko ginnaaw rek ba nga ne si ne jël na ab décision wax na rek ñu dugalaat ki nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko si liste rectorat bi ñu ko na nag ñu ngi see gis ay jàngat yu bëri bëri ñu mel na nag boobe la décision dafa nekk lool lu baax lool si ki nga xam ne moom moo di président Ousmane Sonko ndaxte nak dina ko may mu mën a rek jëli li nga xamante ne si ne moo di de pranasam kon nag ba moytuwule kookee di Ayib dafi nekk mandataire kookee di Ousmane Sonko kon nag mën na ne soo moytuwulee lënd bi mu jëm rek so moytuwulee dina dem jëri rek li nga xam ne di fils de parrainage ginnaaw rek ba décision ba génnee boobu la décision mayaat change yu bëri bëri kookee di président Ousmane Sonko ndax dina mën a may mu récupérer fils de parrainage bu ko defee DGE yaakaaroon na benn dalal kooku nga xam ne moo di Ayib Daffé ginnaaw rek su Saba si fay ba mu ko atte woon foofee rek sa Ziguinchor joxoon ko dëgg rek ñu wax ne dugalaat ko si liste électorale bi mais nag mbir ma dafa mel ne dafa amu ko wóotee ba tax na tey jii rek soo moytuwulee DCE amuñuy pexe pour rek gàntal ki nga xam di Ayib Daffé mu jot si fiche de parrainage kooku di Ousmane Sonko Ousmane Sonko dina bokkam du bokk coow loolu ba day wéy di continuer di am rek fii si réewum Sénégal ndax ku ne xam ne état bu Sénégal nu def rek ba di Ousmane Sonko participer élection option yi dina ko def waaye nag ba tey na ànd ak ñoom ci bataille judiciaire bu xamante ne si rek jamono ji Ousmane Sonko dafa mel na man ngi say commencé am chance ginnaaw ban waxee ne nas ko dugalaat si liste électorale bi mu doon àtte bu mujj bi nga xamante ne si ne xel yu bëree bëri dala neegum si yaakaar ne kookee Ousmane Sonko dina bokk si ñi xam ne ñooy jogante njiitu bu réew mu Sénégal 2024